Oui, Racine Senghor, administrateur du monument de la Renaissance africaine, président du comité scientifique des 40 ans de Kalidou Kassé. Abdoulaye Racine Senghor, man Saloum Saloum la. Hein? Euh, Saloum Saloum, ñoo Saloum Saloum pire. <laughs> Euh, juddoo màggee diggante Kaolack Sokone Foundiougne euh, muy ancienne région du Sine salum muy région boo xam ni muy gox boo xam ni cosaan dafa am doole ak euh, ak jàng ak xam-xam fàttali ne foofu ay daar yu mag am nañu fa ci Sine kilifa yu mag fa lañ jànge alxuraan kilifa yu mag am tamit ñu ngi foofu Kaolack muy dëkku ñas Niass Sokone muy dëkku El am a Dem Silmang muy dëkku Maam Ansou ñooñ ñëpp ay kàngam lañu ñoo xam ne dañu bari ay taalibe te mënuma lim ñëpp ma jàngee foofu juddoo fa jàngee fa école primaire secondaire bi université ma defee ko Ndakaaru jàng fii ba doctorat nekk jàngalekat jàngale fu bare bare nekk tamit nekkoon fi directeur de l'enseignement secondaire maanaam lépp luy collège ak lycée ci Sénégal ma nekkoon seen directeur ministère de l'éducation nationale nekkit responsable benn programme boo xam ni dafa waroon a méngale li ñuy jàngale ci lycée ak collège yi ci réew Afrique yi làkk français yëpp muy projet ARCH kon ma liggéey ci méngale programme yi ndax euh, boo jógee Djibouti mën a jàngee Sénégal boo jógee Mali mën a jàngee Madagascar boo jógee Gabon mën a jàngee Niger harmoniser programme yooyu ñu def ko ci français mathématiques sciences physiques ak sciences de la vie et de la matière yoo xam ne yi bu ñu méngoo jàng bi jàngale bi dina dina dina yomb jàngalekat yi ak jàng ñiy jàng élèves yi tamit dañ mën a déplacé wu te du yàq dara ci seen seen jàng walla seen jàngale ma nekk it tamit directeur des arts euh, un moment nekk directeur de cabinet ministre de la culture et ministre culture du genre et du cadre de vie ak ministère de la culture et du tourisme ñoom Awa Ndiaye ñoom euh, Youssou Ndour liggéey ak ñoom di continuer bi léegi di liggéey ak ñoom ñuy ay nit ñu baax a baax a baax ay borom xam-xam ak ñu am euh, compétence yu bëree bëree bëri ma nekk fii nag léegi directeur administrateur du monument de la Renaissance africaine mais gannaaw loolu ma nekk bind bindkat des écrivains poètes mais surtout critique littéraire maanaam di jàng li nit ñi bind di bind ci li ñuy bind ngir nit ñi mën ko jël mën ci am xalaat loolu nekk na peut-être activité bi gën a bari ci di may def mu tax ma nekk ci jury littéraire yu baree bari ci àddina bi yu mel ni prix littéraire de la francophonie prix des cinq continents mu may ma ma am ubbeeku ci lu baree bare di jàngale bi léegi nag ci université de Saint-Louis UFR CRAC am nañ fay tàggat ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu caada ak cosaan aada ak cosaan waaw mun ma la Renaissance nag dañ fi war a ñëw ndax dafa am lu mu tekki lu rëy xam nga ki ki ko xalaat mi président Abdoulaye Wade ak ñi ko liggéey ñu ñoom Atepa ñi leen jàppale muy coréen yi dañu gëm lu bare bare ci li nit war a doon monument la renaissance africaine africaine nag dafa nekk fii ci Wakam nekk ci Ndakaaru nekk Sénégal waaye Wakam moomu ko Dakar moomu ko Sénégal moomu ko Afrique yëpp ko bokk ak ñi nga xam dañ nekk ay africain nekkuñ ci continent bi muy waa diaspora bi li mu tekki mooy nit ku ñuul africain nga xam ne fii ci Afrique la nit sosoo ci li ko science bi wane amul dara lu mu war a ñee yeneen peuple yi ndax fii la yëpp déparé fii la civilisation yu mag yi jóge fii la xam-xam yu mag a mag yi fii la jóge jógee fii la Égypte nekk ci Afrique fii lañu ñu mag ñu nekkoon Grèce ñëwee taataan xam-xam mu am nag ay moment yoo xam ne histoire Afrique dafa xawoon a metti muy bi ñuy jàpp jaam yi di leen jaay yóbbu leen Amérique ak tamit bi tubaab yi ñëwee fii coloniser ko ñu koy waxee loolu mu nekk ay page yoo xam ne si ñetti téeméeri at wala ñeenti téeméeri at yoo xam ne ñu ba dañ yaakaar ni mooy suñu histoire fekk benn partie la ci histoire bi loolu lañ ko war a janoo nag ak àddina bi liggéey ngir Afrique suqaliku te doomu Afrique yi mën nañu loolu mën nañu loolu il faut ñu jàng te ñu ngi jàng il faut ñu nangu liggéey te loolu de plus ñu ngi nangu liggéey il faut ñu gëm suñu bopp ñun li tubaab di wax estime de soi ñu gëm suñu bopp am confiance ci suñu bopp ngir mën a liggéeyal Afrique ngir mën a liggéeyal réew Afrique bu ci nekk monument de la renaissance loolu la bëgg nit ñi jàng ko moo tax mu nekk monument bu rëy a boo xam ne foo toll ci dëkk bi daf lay impressionné. mu am ci biir nag galerie mu am ay exposition yoo xam ne soo fa demee di ko jàng lu bëree bare bëri li ngay jàng nag commencement jàng la rek parce que jàng du wees boo génnee dafa war a sonj nga gën a mën a jàng gën a mën a gëstu pour xam ni nit ku nekk am na rôle bu mu war a jouer ci réewam te warul bàyyi kenn defal ko su ko ñëpp defee Afrique dem kanam. monument Siteu yi dégg nga yaa ko monument la monument patrimoine la ah monument patrimoine la dëkk bu nekk wala am ay monument monument yi ñuy téye di ko laal comme monument bi nga xam ne ci teg sa ak monument yoo xam ne c'est ah, ay nit fi nekkoon jógee fii ay monument lañu même suñu leen tabaxalul monument monument boo gis patrimoine la fii xëy na bu ñu demee ba ca kanam monument bi fukki at la amagum bu ñu demee ba ca kanam xëy na dina nekk classé dans le patrimoine national bu ñu demee ba ca ñu classé ko dans le patrimoine mondial par l'UNESCO yaakaar na dañu yegg foofu incha allah. monument bi du Sénégal Afrique la c'est le monument de ñi ko créé gisuñu Sénégal Afrique la ñu gis Afrique la symbolisé statue bi benn famille la ay nit ñu lañu ñoo xam ne dañ jóge ci biir suuf ci fu gën a sore ci suuf fii volcan la foofu la ñu génnee génn ci jafe-jafe yi génn ci histoire bu difficile bi génn ci loolu yëpp taxaw ni ñu génnee noonu mouvement boobu mu indi force bi ngay gis ci monument bi mu symboliser donc la sortie génn misère génn ci lu coono yi génn ci jafe-jafe yi ngir nag jàkkaarloo ak àddina bi papa ji doom ji ak yaay yi muy famille bi ngir liggéeyal seen réew ak seen continent. monument bi nag xam nga yàggul mais ñaa ngi ñëw di visiter ñii ñëw nag ñu ni si gën a ñi si gën a fonk ñu ñëw fi mooy xale yi ndaxte africain sénégalais surtout tàmmul di dem ci ay monument ak ay statue damay laaj léeg-léeg leen ay journalistes sax yu ñëw su ma ne est-ce que mës ngeen visiter mu ne am ñu ma déedéet est-ce que mës ngeen visiter musée de la place Soweto ñu ne ma déedéet est-ce que mos ngeen visiter les sites mégalithiques de Sine Ngayeen ñu ne ma déedéet maanaam amaguñu culture dem seeti gëstu place yi nga xam ne mooy site mémoriel yi ñuy fàttali loolu il faut ñu jàngal ko xale yi bu ñu màggee jàngal ko ñoom seen i doom mu ñëw parce que ñu koy def yëpp seen ba ñu nekk lañu koy jàng fii nag ñu bari ñu ngi fi ñëw di ko visiter élèves yi ñu bari dañuy ñëw dañ leen di encourager ñu def li ñuy wax visite pédagogique mais touristes yi ñu ngi ñëw. yeneen visite tam ñu ngi ñëw di xool di jàng parce que nga ñu ñu ñu la du ñu taxaw si biti xool photo ñi fi dem sa donc am na impact évidemment touristique bu ngeen di xool photo yi wane Sénégal bu si bëri bu ngeen xoolee di ngeen gis monument bi ni ñu daan gisee gore léegi noonu la ñuy gisee monument ça veut dire que mu ngi joué rôle pour nit ñi bëgg ñëw fii Sénégal wala ñu nekk Sénégal bëgg visiter parce que bu ñuy wax visiteur. du touriste yi jógee bitim réew rek ñu nekk Sénégal aussi ñu ci am solo lañu. ah bi mbas bi amee léegi visite amul <laughs> parce que dañu tëj à partir du mois de mars xam nga ne lépp luy place bu nit ñi war a tase fii dañ ko tëj xam nga mënoo dem stade ba seetaani match dañu tëj stade Léopold Sédar Senghor ba Diop mënoo faa dem mënoo dem Sorano dañ ko tëj Grand Théâtre dara xewu fa. musée des civilisations noires yëpp bërëb yëpp yi nga xam ne état moo ko moom mu war a accueillir nit ndax mbas mi bañ a law dañu ko tëj semaine passée lañu commencé ubbi nit ñi di commencé dellu si di visiter monument bi mais ren moom 2019 daanaka visite warewuñ fi loolu am na donc impact mooy nit ñi ñëwuñu nit ñi buñ ñëwul ñu suñ message du mën a jàll. beneen bi tamit mooy nit ñi ñëw di visiter dañuy fay dañuy fay pour visiter loolu aussi manque à la mais état bi moom moom monument c'est un bien du privé donc état moom am na ay moyen pour entretenir monument bi téye ko euh, malgré les difficultés. waaw te war naa ci tontu tontu boobu Kalidou Kassé dafa nekk suma xarit jëkk Euh, muy nit ku baax koo xam ni dafa fonk nit xam njëriñu valeuru doomu aadama loolu mooy li ko jëkk a màndargaal moom ni mu woyofee ni mu bëggee nit ni mu xamee nit ni mu respecté doomu aadama mu tax mu nekk xarit ñëpp ku nekk da yaakaar ne Kadir moom moom rek la am ci xarit xam nga nit ku baax mooy mel noonu beneen bi mooy muy artiste bu mag a mag ñeent fukki at la ñuy sargal ren yoo xam ni mu ngi liggéey di produire joxe ay œuvre d'art ñeent fukki at xam nga lu du ñaar lu ñeenti at quarante ans presque ñaari génération la ñu tase donc ci foofu ci culture bi ci aar bi muy def ay œuvre yu am solo di peinture di sculpture di tapisserie loolu gën ñoo boole parce que man loolu dafa nekk aussi domaine boo xam ne même su ma nekkee professeur dans les lycées collège et à l'université art dafa nekk suma bëgg-bëgg dafa nekk suma passion ñu tase donc ci passion boobu noonu ñu bopp di ànd nag bu yàgg ci wàllu woowu. du rek colloque anniversaire quarantième anniversaire de la vie artistique de Sada ñeent fukkeeli at bi muy yëngu ci wàllu art dañ koy def mu nekk fête bu rëy rëy incha allah boo xam ne mu ngi commencé le 27 novembre ba le 28 décembre muy weer manifestation yi weer lay am bi si jëkk. li mu defar ay tableau yi mu defar ay tapisserie yi mu defar ay dessin yi mu defar lépp loo xam ne def na ko dañ ko fa wone ci exposition bu mag a mag a mag loolu mooy ubbi mbir yi le 27 novembre ca ëllëg sa mu am panel bi nga wax colloque bi le 28 am colloque naa si ñëwaat léegi après mu am continuer exposition bi pendant trente jours mu am yeneen activité yoo xam ne dañ fa sargal ay xaleel parce que Kalidou ku bëgg xale yi la dañu fa sargal ay xaleel and ci ak programme alimentaire mondiale ànd tamit ci mbir mi ak ñoo xam ne ñii dañuy liggéey luy jëmale culture kanam luy jëmale aar kanam luy jëmale Sénégal kanam ak Afrique kanam loolu mooy manifestation Kalidou Kassé bi Euh, colloque bi dafa am euh, dafa am tem global mooy art et société mooy tem global bi art et société lu am solo la maanaam li ñuy fent ci wàllu art ak ñi nga xam ne lañ koy fental muy société bi loolu mooy thème bi xam nga loolu lu yaatu la am société bi ñan la aar bi ñan la mais waxuñu aaru Kalidou Kassé ak société sénégalaise waxuñu loolu dañ ne aar yëpp aar ak société société yëpp loolu mooy thème mu général bi mu am nag panel boo xam ne ñetti panel lay doon bis yi dina leen xaw a jaaxal tuuti mais lu lu neex comprendre la bis jëkk nga xam mooy intéressé colloque bi mooy nan la ñuy effacer bor yi Afrique am waaw ah, nationalité africaine bor bi dafa dafa diis lool ci Afrique te bor bi yu si bare mënoon na bañ a nekk wala mu bañ am ampleur bi mu am ndaxte ñi doon lebale am na lu bare loo xam ne jëluñ ci compte intérêt yi bare lool mu diis lool ci population yi mu nekk thème boo xam ne ñaari at yi ñu ngi koy yëngal bu baax a baax waxoon nañ ko sax ay année ngi nii maa ngi fàttale ko ni Union africaine organisation de l'unité africaine débat nañ loolu lu bare bare bare ci tàngu Thomas Sankara par mais dafa ñëwaat ndax événement yi am situation bi ñu toll lu ñu war a seet la pour mën a annuler la dette africaine bu ñu ko annulé woon artistes yeeg fonctionnaires yeeg entrepreneurs yeeg ñu si bëri nañ gën a am possibilité liggéey deuxième thème bi mooy léegi wax nga ko ban euh, jeexital. feebar bi di Covid am ci wàllu culture ak tourisme ak numérique bi lan la ci feebar bi def ci loo xam ne day wàññi seen seen daraja seen dangar loolu bu ñuy wax relance économie yëkkatiwaat ko bu ñuy wax may nit ñi ñu mën am kattan ak doole ngir liggéey ci wàllu yu ñuy féetee bu ñuy wax tey li nga xam ne nii moo accéléré dem beeg dikk bi muy numérique internet ak réseaux sociaux yi ak li ñuy jox génn yëpp ci xarala yu bees yi Covid bi am na lum ci def loolu buñ ko gëstoo xool ko du ñàkk ñu mën a def li gars yi ni tubaab yi di wax euh, changement de paradigme maanaam gisaat àddina bi beneen façon façon boo xam ne dina tax journalistes yi jàngalekat yi sportif yi ñu nekk ci bureau yi ñu nekk ci usines yi ak ñoo ñëpp ak relation yi am ak yi nekk yeneen réew yi Europe yi ak Asie yi Amérique ñu xoolaat nan ñuy nekkee parce que nekkin boobu am na solo ci doxinu àddina bi ndaxte àddina bi. ci Covid bi il faut mu changer doxin loolu d'une manière ou commencé na ko changer d'ailleurs hein thème bi nga xam ne mooy troisième panel bi mu ngi jëm ci xale yi ak seen ëllëg wax ci c'est français enfance et avenir nee naa Kalidou koo xam ne xale yi daf ko soxal la xale la activités yu bari yi muy def ci xale yi lay jëm mais xale yi foog ñu xalaat seen ëllëg te ñi nekk tey ñooy xalaat ëllëg thème boobu donc loolu lay lijjanti pour dindi fii euh, l'enfance malheureuse l'enfance de la rue yokk scolarisation bi may nit ñi espoir ñu bàyyi dugg ci gaal yi di dee ci géej gi yu mel noonu enfance et avenir fokk également ñu waxtaan ci mooy ñetti thèmes yi ma la wax nii. jël gaal dem tugal bi moom mooy li sànq rek bu ñu gëmoon suñu bopp xam ne lu bari mu ngi fii si suñu réew bi mais foog nga xam ko gëm ko ñu bari lañ dugg gaal dem mais jafe-jafe ak ñàkk espoir moo tax ñuy xaru parce que dugg si gaal yi dem jógee foo xam ne amul géej mosoo dugg ci gaal nga dugg gaal yi dem ñu dañuy gis ay jinne ay rab ak ay kenn xamul. loolu dañuy neer xamuñu géej boo neeree lekkuloo mais da ngay am hallucination moo indi loolu mais on comprend xam nañu lu tax ñuy dem noonu il faut ñu amaat beneen gis-gis gëm ni boo dépensé cinq cent mille wala un million jox ko boroom gaal dem Europe loolu noonu soo demoon Saalum li nga fa liggéey te doo dee si géej gi il faut ñu gëm loolu. liggéey dafa bari ay façon buy liggéey da dem ndànk nag bañ a yàkkamti parents yi autorité yi ñëpp dañ ci war a wax jàpp ci xelal xaleel yi ñu xam ne fi ñuy yaakaar foofaa gën a metti ñu bari xamuñ loolu ci ñoom Europe ñoo gën a sonn boo fa demee doo fa jëlee nii am chance gën jëlee fa dara barewuñu mais ñi yaakaar mu fa demee jëlee fa dara dañu bare malheureusement man suma gis-gis mooy lu mu metti metti war nañoo gëm ne buñ toogee fii dañ si génn mais il faut ñu gëm ko te ñeme nag génn tamit dëkk yu mag yi ville yi ñu bari ñu ngi Dakar buñ demoon Toubacouta nañ fa liggéey ah ñu bari ñu ngi Kaolack wala si dëkk yu mag yi mais bu ñu demoon. Euh, Euh, euh, euh, Nioro wala plus loin sax mën nañ dem Sénégal oriental Casamance partout toutes les régions amul fenn foo xam ne amul possibilité ñi ngi ñi ngi loolu la war a jàngal xale bi wan leen ne bu ñu góor góor góorgóorloo fii mën fi jëree lu bare bare mais nag bañ a yàkkamti doo ji tey rek récolté tey su fekkee da ngay entreprendre gis nga xale yi toog fii nga romb léegi étudiants yooyu ils sont 17 étudiants ñoom dañ def formation bi pare fi mu nekk dañuy waxtaan seen biir yan projet lañ mën a defar pour entreprendre muy seen entreprise bopp 17 xale yi nga romb fi léegi loolu lañu fay def mooy seen waxtaan mu wóor na ñi bu ñu fi génnee dinañ def dinañ def dara bu ñu amee même cinquante mille cent mille deux cent mille commencé dinañ def dara bu ñu yàkkamtiwul mais dans un an cent mille boobu na nekk million dans trois ans mu nekk dix millions bu boobaa nag ñu commencé nag fonctionner di jël ay xale ñu leen di liggéeyal mooy entrepreneuriat fa nga gëm ko loolu daal mooy li mu si gis metti na trop parce que gis xale yi di dem di des ci géej gi par centaine muy fàttali li amoon ci pays asiatique yi Cambodge les boat people dans les années soixante dix quatre vingt muy lu metti ci bët metti ci xol. te ñii nii ñu wóor ni mais fu mu teg fi def ko ñu bari nag ñàkk xam moo ko moo ko waral bu ñu jàngoon Amérique fu mu jógee fan la jaar bi nekk Amérique bu ñu jàngoon Europe fan jaar bi nekk Europe non pas mille huit cent c'est bien plus loin dinañ xam ne fii nii africain ñoo ko war defar foog mu metti pour ñenn ñi mais yàlla moo bindee mbir yi noonu ku ko gëm si li ma gëm man ku ko gëm. di liggéey dina la dina la may maa ngi dégg sëriñ sëriñu sëriñ Abdou Khadre sëriñ Bass muy porte parole muy muy wax lu rafet di wax xale yi ñu toog liggéey mais nag di la wax aussi ne jël gaal yi dem te mënoo fii xamoo gaal xaru la <laughs> xaru la aussi nii war nañ si jàpp dan ku ñàkk espoir nag neexu la waxal hmm? bu xoolee tuuti rek bu nelee ba yow rek nga woon ko la dina gis loolu ñaan jeunes yi comprendre cette possibilité là au Sénégal mujj damay dellu si si Kalidou Kassé te invité nit ñi ñu ñëw si anniversaire boobu ndaxte aar la ak culture Senghor dafa waxoon ni la culture est au début et à la fin ku ne culture lay nekkee yow mii toog man di wax ni ngay waxee ak man ni nga toogee ni nga def sa loxo yi ni may xoolee culture la tubaab du def ni nga def asiatique def ni ngeen def ni ngeen toogee nii culture la mooy ñun ni ñu mel bu ñu ko changé rek musiba am ni ñu jàpp suñu culture respecté suñu artistes yi encouragé leen ñu créer ñu gis li ñu def rek yëpp baax incha allah.